bii nii nag wax dëgg fa yàlla doole yi doole ya fa nekk jamono ji tolloo nañ mais mhm. euh, débat bu nga fay gis jamono ji nii instant bii nii est-ce que en tant que en tant que koo xamante ne si nii day def ay jàngat euh, ci biir ci biir fële ci biir assemblée dafa mel ni que nii euh, la ñu xamoon bu njëkk ak la fay am léegi am na benn wuute est-ce que jàpp nga ni instant bii ñu toll nii la lañ fay poser comme débat moom la Sénégalais dañu xaar te député yi ya fa nekk instant bii nii ña nga nekk ña nga nekk di di doxal loolu noonu waaw bu dee député yi nekk ci kujje gi mhm. euh, vraiment jox nañu satisfaction parce que boo dégloo Guy Marius Sagna nga déglu Abass Fall nga déglu Birame Souleye mhm. nga déglu euh, Aba mbay mhm. ak ñeneen ñi ak ay soxna yoo xam ni maa ngi leen di doog a découvrir ñu impressionné ma positivement ñoo xam ni elles ont vraiment la tête sur les épaules elles sont très responsables loolu dañ ciy am mbégte euh, day contrasté nag ak député nguur gi nga xam ne ñoom ba léegi ca la ñu nekkoon la ñu nekk rek dañu foog ni ŋàññante saaganteeg xastanteeg defante lu ñaaw moo leen indi assemblée nationale maanaam mhm. xeex ak guerre mhm. moo leen indi assemblée nationale alors que discuter euh, fu réew mi jëm ci euh, budget am ci ay projection am ci ay projet am ci ay loi am ci ay lépp donc lu sérieux sérieux la affaire Alfousseynou Guèye bi rek nga xam ni moom moom lañu doon évoqué léegi mhm. te muy docteur bi nga xam ne moo def certificat médical bu Adji Sarr euh, honorable Mamadou Lamine Diallo tey rek interpellé na ministre de l' intérieur ne ko Alfousseynou Gaye de ñu ngi koy xoqatal. moom médecin bi waaw moom médecin bi nelawatul. assemblée lañ ko teg de. Mhm. nelawatul ci circulation bi sax amatul jàmm ñu ngi koy sonal ñu ngi koy fitnaal te du yoon te nee na moom mbokkam la ñoo bokk ki leen yar nii ministre de l' intérieur na nga lijjanti affaire boobu pour moom mu am jàmm donc ça que. ñuy exercer ay pression ci ay ay ay ay personnes assermentées ñoo xam ni dañu produit seen acte administratif ba noppi ñu leen di menacer déggoon ngeen Babacar Touré ni jéem nañ fi saboter otoom jéem nañu def infraction këram et cetera et cetera loolu tey mbokkam Mamadou Lamine Diallo honorable député moo ko confirmé ba interpellé ci le ministre de l'intérieur te lii yëpp mu ngi xew ci jamonoy coupe du monde bi. ñu bëri xamuñu ni woo nañ ko ba entendre ko woo nañu si Sidi Ahmed Mbaye ba entendre ko donc ñoom ñu ngi profité di teg li ñuy teg affaire wu ñuy disparaître ak yooyu yëpp mhm. c'est c'est c'est c'est dans le même contexte lañ ko dundee donc assemblée bi oui am naa ci vraiment motif de satisfaction parce que ñu ngi poser les vrais problème yi nga xam ni moom la ñu war a poser assemblée nationale donte nag mhm. euh, beneen camp bi ñoom ñu ngi toujours ci ay defanteeg saagaanteeg ŋàññante alors que Guy Marius Sagna boo ko dégloo. da ngay da ngay da ni lii yéex na am quoi. boo dégloo Abbas Fall Birame Souley Abba ak femmes yooyu ñu baal ma jàppaguma seen tur xam naa ni dinaa leen gën a nemmeeku sax parce que dinaa gën a bàyyi xel ci débat parlementaire yi donc euh, ñoom ñëpp am ñu taxawaay boo xam ne daal moom lañ doon séntu ci ñoom. d'accord que gis ngeen affaire Prodac bi ñu ni dañuy ubbi enquête parlementaire. affaire élection yi lépp ñu ngi ciy interpellé les ministres concernés. moom Mbaye Niang moom nee na défier na Sonko fi mu ne nii. non non moom défi défiem dafa yomb parce que <laughs> dafa profité ci benn lapsus wala benn méprise parce que Sonko. dafa viser IGE. IGE inspection générale d' état alors que IGF e. e moo produit rapport bi c'est moom nag bu ko neexee mu waat ni IGE mosu koo épinglé mais mais sañul waat ni rapport épinglé wu ko donc foofu rek lay lay prox loolu te loolu dafa dafa xaleele trop quoi ci koo xam ne. xam nga ni rapport IGF dafa reconnaître ses responsabilités ci initiative bu décaissement euh, crédit yi à l'endroit de Green de euh, euh, Green 2000 mooy société israélienne bi nga xam ni mhm. balaa muy am contrat sax jox nañ ko ndigal pour mu jox xaalis donc loolu anomalie la boo xam ne dañ ko dañ ko dañ ko dañ ko relever ci rapport yi te rapport lu ñu bind la du loo xam ni day changé tey wala wala mooy comme rapport gendarmerie rapport département d'état bi rapport contrat d'armement yooyu yu yu dul changé la yooyu bu ñu ko tegee ci table bi tôt ou tard yoon dana ci mën a def liggéeyam donc weddeeg ñàkk weddee ci yam mais lu am la. d' accord <laughs> kon IGE hmm. IGE hmm. bi ñu sukkandiku daal hmm. euh, ci ci li Sonko wax ci IGE bi loolu mënul wàññi ci mbir yi dara quoi. non mënul wàññi ci mbir yi dara parce que euh, Prodac. mais Prodac dañ fa dañ fa dañ fa lu bal xaalis. Euh, man yàgg naa wax ni dañoo mës a jaay ma expliqué la. dix pour cent wu ooru Sénégal la bi ñu waroon am. dañu waroon préempter dañu waroon jënd dix pour cent d' actifs supplémentaires 2016 2017. léegi loolu nguur gi daf ko jaay daf ko jaay dix millions de dollars tey jii six milliards et quelque la mais ca booba cinq milliards kese la woon manqué woon na tuuti sax cinq milliards quatre milliards euh, huit cent et quelques millions la woon ci jamono jooju. la ñu jaayee dix pour cent wu or bi nga xam ne euh, euh, Sénégal daf ko war a am ba abadan. mais bi ñu ko jëndee bi ñu ko jaayee. Mhm. xaalis bi xam nga fan lañ ko duggal mhm. Prodac mu seey ci vingt neuf milliards yi seey ci la cinq milliards yooyu bokk. domaine agricole communautaire bu Itato Itato benn dëkk bu nekk Kédougou la ñu dugal cinq milliards yooyu mu ànd ak loolu seey loolu ay firnde la euh, euh, ITIE def na ko ci rapport am te affectation directe lu ñu tere la ci règle et principe budgétaire parce que bépp xaalis bépp recette bépp dépense. dañ ko war a mandargaal obligatoirement ci budget bi balaa muy génnaat te bii dañ ko jël rek dugal ko directement Prodac mu seey loolu ñoo ko tey donc léegi président Macky Sall. Mhm. Euh, war na assumer ay responsabilités parce que dara mënul am sans son aval et son consentement. moom mais mais euh, Mame Niang bi ñu ko épinglé dafa ñu woon day démissionné benn dimanche muy wër naan day démissionné fu muy déposer lettre démission dimanche. mais après Macky Sall da ko jël def ko chef de cabinet présidence Abdoulaye Daouda Diallo bi nga xam ne moo signé une fausse facture ci contrat d'armement quarante cinq milliards trois cent millions yi bi ko wàccee. Macky Sall daf ko jël def ko def ko directeur de cabinet mu sës rëkk ci moom. kon moom mais il doit rendre de sa de cette gestion gabégique bi nga xam ne moom moo leen coiffé ñoom ñëpp ñoom ñëpp ñu nekk euh, euh, objet de malversation ñu leen di joxoñ baaraamu tuuma ñooñu tey ñoo nekk di menacer nit ñi. naan dañ leen di tëj kaso ñoo fi nekk di jàppaate sàcc yi ñoo fi jàppaate loolu toujours ma déplorer ko donc 94 euh, euh, euh, milliards yi ñu fi yëkkati woon. Mhm. OFNAC jox na dëgg Sonko mais léegi problème bi mooy naka la ñuy def ba Sonko xam ni OFNAC épinglé na Mamour Diallo. Mhm. naka la ñuy def ba IGF rapport am mais woon nañu sax ni Amadou Ba. mooy xeex Mame Mbaye Niang ci jamono jooju xaw ma ndax déggoon nga loolu am déet. waaw moo nekkoon euh, ministre des finances. <laughs> lu nekk lu nekk am na fi mais toujours est-il que ñoom lépp lu ñuy def. Mm-hmm. dana tegu ci pénc bi ñu bëgg ko wala ñu bañ ko. Mm-hmm. te am na yeneen yu ñëw. Mm-hmm. yoo xam ne dañ ko teg ci pénc bi yu garaaw a garaaw garaaw garaaw ñu bëgg ko. ñu bañ ko comme ñoom dossier la ñuy bañ a gis la ñuy bañ a dégg. ku teg dossier ñu ñu tëj la wala ñu ñu ñu seey wala ñu rey newoon naa leen digoon naa leen ni chaque jour ñu teg dossier ci table man ñëw naa ak dossier armement ñëw naa ak département d'état dinañ ñëw ak yeneen dossier te rapport gendarmerie bi danañu exploiter la ca des ñëpp xam li ci nekk nekk in extenso bi ñu kiiwee Pape Alé Niang waaw d'accord mais ci as biir assemblée nationale parce que déggoon nañ fi moom ministre de l'intérieur Antoine Diome wax ni euh, bo wala kon président Macky Sall sax wax ni moom am na assemblée bi nu muy taxaw bu bëggee boole ak ay projet am mën na dissoudre assemblée bi <laughs> du gouverner par ordonnance tey ñu ñu gis ni euh. démb gis nañ député yi euh, budget bi fii euh, ministre moom Antoine Diome mm-hmm. gars yi voté wuñ ko dañ ko mm-hmm. dañ ko bloqué est-ce que mm-hmm. jàppoon ni loolu président de la république mënu ci jog ji pour pour pour dëggal kàddu yam waaw daal di gouverner par ordonnance waaw d'accord léegi Bijou est-ce que mën nga dem constitution du Sénégal article 77. article 77. Mhm. dafa ne ñoom foofu la ñu sukkandiku mais loolu mënut a nekk constitution bi dafa prévoir effectivement ni ci yenn condition président mën na gouverner par ordonnance c'est-à-dire euh, assemblée moo koy jox dogal pour mu gouverner. Mm constitution du Sénégal article 77 dafa ne. l'assemblée nationale peut. Mhm. waxul mmh. le gouvernement waxul le chef de l'état peut. dafa ni l'assemblée nationale peut par ordonnance habiliter euh, le président de la République mm-hmm. de prendre des mesures qui sont domaine, normalement du domaine de la loi. Mmh. L'Assemblée nationale peut habiliter par une loi, le mot sax par une loi. L'Assemblée nationale peut habiliter par une loi. Donc loi la bu ñuy voter assemblée. Déjà ñoom majoritaire ñu de façon claire. Mmh. L'Assemblée peut habiliter par une loi. le président de la République à prendre des mesures qui son normalement du domaine de la loi léegi le cas échéant bu fekkee ni habilité nañ ko Assemblée nationale dafa war a ratifier chaque ordonnance bu président jël pour mu valable léegi président bu jëlee ordonnance day jaar assemblée assemblée nationale ratifier ordonnance bi autoriser ko ordonnance bi. d'accord loolu ba muy am 125 députés. mënoon na nekk parce que bi ñu waxee Covid. paf dañ ko defal loi d'habilitation. mu teg loxo ci 1000 milliards. def état d'urgence état de siège yoo xam ni kenn voté wu ko moom moo doxal loolu. assemblée moo ko habilité parce que moo am majorité mais pour assemblée bi habilité ko mën na nekk mais il faut opposition bi d'accord ci foog mu waxtaan ak ñoom gii waxtaan ak ñoom Abbas. Hmm. waxtaan ak ñoom Birame Souleye loolu moo changé waxtaan ak waa Wallu. waxtaan ak ñoom ñëpp loolu moo changé assemblée nationale donc majorité bi koy may mu am loi d'habilitation est-ce que am na ko assemblée nationale. mais moom pour dissoudre assemblée la wax de bu bëggee dissoudre. assemblée non pas dissoudre gouverner par ordonnance assemblée mënoo ko dissoudre avant deux ans kooku muy benn kooku il faut mu leer. Mhm. assemblée bi de euh, juillet 31 juillet 2024. Mhm. au-delà de 31 juillet 2024 la ñu mën a dissoudre assemblée. d'accord par contre article 77. Mhm. may na. président mu gouverner par ordonnance bu fekkee ni assemblée nationale habilité na ko hmm. l' assemblée nationale peut par une loi habiliter le président de la république à prendre des mesures qui sont normalement du domaine de la loi et le cas échéant chaque ordonnance doit être ratifiée par l'assemblée nationale toute ordonnance qui n'aura pas été ratifiée par l'assemblée nationale sera caduque loolu le texte yi wax loolu lu leer la suñu constitution moo ko wax léegi nag ñoom dañuy menacer nit ñi mais mais mais nit ñi nañu nañu nañuy xool quoi maa ngi leen di renvoyer rek ngir yàlla article 77 constitution ku ko tàppee Google dina ko gis. Hmm. ngeen xam loolu la loolu lañ ci wax li muy wax mënu ko def ci assemblée boo xam ni amu ci majorité. d'accord bi mu amee 125 députés mënoon na gouverner par ordonnance mais assemblée bii bii bii bii. mënatu ko moom 82 députés la. kon loolu leer te te loi organique il faut la majorité des trois cinquièmes trois cinquièmes mooy quatre vingt dix neuf députés fu mu koy jëlee foog mu waxtaan il peut voilà loolu la loolu na ko nit ñi fàtte loolu ay waxu waxu politicien la mais mais mais munu ko munu ko d'accord constitution prévoir na ko mais configuration assemblée mayu ko ko il faut waa Yewwi ak waa Wallu d'accord d'accord ci loolu pour mu mën a am quatre vingt dix neuf voix yu ko votel loi d'habilitation d' accord loolu leer na. waaw loolu leer na sànq yaa ko tudd muy Amadou Ba bi nga xam ni tabbu na ko premier ministre. mais yaa ngi guddal de. ah <laughs> non lii mooy. Mm-hmm. yu mujj yi. Mm-hmm. Mm-hmm. <laughs> yi mooy yu mujj yi Amadou Ba bi mu tabbu premier ministre tekki tekkaaralam gu yàgg gii nii. maanaam extra.